al ibaadatu wal xidma di jaamu maa ngi nuyoo ko tekki loxol sëriñ xaadim ak sëriñ wax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp te yàlla na ko yàlla boole di ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd ñu bàyyi ko ñaan yàlla nangul ñu nangul ñëpp mbokk mi laaj fecc ak tëgg luy atteem ci lislaam yooyu def xola bu fekkee ne jaxasoo wut ak lu xaraam wala mu dox diggante nit ki ak farata dañ koy jàppe lu dagan waaye bu àndeeg awra ju génn wala jaxasoo ñu warta jaxasoo wala jàq fitna bu waat daganati wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñam woo xam ne dañ caa def tuuti sàngara ndax nee na fa ñu nekk bu ñu togg dañ cee def tuuti sàngara ngir mu gaaw laaj ndax lekk ñam woowu dagana wala déet jëmmi sàngara sobe la daganut di ko jël di def ci aw ñam jëmmi loolu daganut suñ ko defee ci aw ñam yéen nag mu bàyyi ci benn jeexit ci saf ka wala xet wala melo su boobaa lekk ñam wadu dagan wallahu taala alam mbokk mi laa nee na koo xam ne dafa amee ak taab ci wow moom buy sangu janaaba nu muy def waaw bu fekkee ne mën naa def garab ci góom ci euh, fa taab ga nekk bu ko bànd ko ba ndox ma du ko lor boobaa day def noonu sangu te masaa ca kaw bànd boobee nga xam ne fo la gumba nekk wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne day jëfandikoo doom yoo xam ne day day tax te soreel am njuram mu ne loolu nag day waral bu ko fàttee jëfandikoo rek eh, nee na regalam day ñëw muy laaj ndax su setee ba noppi fàtte jëfandikoo doomi régalam ñëwaat day bàyyi julli wala déet waaw bu leeree ne lam gis régal la day bàyyi julli bàyyi woor bu leeree ne régal bu fekkee dara la joo xam ne ak wéradee ko waral nag nga xam ne du regal waaye ndax regal bu génnee ba set bala ko boroom a gisaat faw dana mat fukki fan juróom bu fekkee ne matul fukki fan ak juróom dañuy jàpp ne benn wéradi la wala dara di njëkk jëm moo setutoon waaye bu matee li mu war a mat bala koo gisaat gën jaa néew dana mat fukki fan ak juróom kon su gisaatee geneen deret dañuy jàpp ne deret wéradi la bu dee wéradi la moom borom day julli day woor waaye bu leeree na mbëral la nag day bàyyi julli woor allahu taala alam mbokk mi laaj nee na mbokk mu jigéen moo xam ne dafa tàmmul julli bu ko ñaanee dara nag da koy wax demal julli ba noppi tor ko jox muy laaj ndax loolu mën na cee jaare ngir tàmmal ko julli waaw bu jàppee ne mën naa am njëriñ waaye bu fekkee nag ne su ko joxee mu julli wala boog su aajowoo dong la koy ñaan te boobaa ci lay julli bu aajowut du ko gis ba di ko wax demal julli ji loola njariñ lu bari te am solo ba mooy fexe ba mu xam ne julli yàllaa ko ko sant te daf ko njariñama ci nekk ñàkk ko dafay lorama ci nekk moo xam jox nañ ko wala joxuñ ko moo xam aajowoon na wala aajowut loolu mooy li gën taala alam nee na jël am ndox wis ko ci aw ñam njëkk ñu koy jëfandikoo ndax dafa am cëslaay ci diini man de gisuma cëslaayam ci digle ko wala tere ko kon jàpp naa ne bu fekkee ndox mu laab la ndox mu dagana naan la li ñu war a xool mooy ki koy def lan la ci jublu bu dee jublu gu dagan ñu jàpp ne kon lu baax la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku faatu te bàyyi lu ëpp ñeenti soxna ndax ci miraas ma soxna yëpp ay doon wala ñeent ñu ko jiitu waaw ci lislaam da ci mazhabu malik bi ñu nekk ñeenti soxna nit ki bu ko xasee am bu fasaatee beneen soxna fasuwut kon ñooñu duñuy soxna wallahu taala alam mbokk mi laa nee na koo xam ne dafa kars gañe ab xaalis tukki ca nee ndax bu tukkee lam fay liggéey lépp day doon lu da lu araam wala déet waaw carte dafa xaraam bu fekkee dafa carte tukkee ko nag lam dafa def na lu xaraam ndax jël na alal ji jariñoo ko amma bu demee nag di fa liggéey te la muy liggéey di lu dagan moom la mu cay jëlee lu dagan la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa dégg ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mëntu woon a liir muy laaj ba xam loolu wér na wala déet waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam de ummiyu la mooy annabiyu al ummiyu boo xam ne mënta bind mënta jàng luñ bind loolu nag aw tàgg la ci moom ndax yàlla ko doon jox xam-xam keneen ku dul moom nag ñàkk mën a bind ak ñàkk mën a jàng du ak sikk la ci moom waaye ci moom yonentu ay islam aw tagg la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na julli farata nga ànd ak mbooloo julli ko ci kër ak nga dem ci jàkk jëlu ci gën dem ci jàkka gën fuuf mu ëpp tuyaaba nit bu jullee ci kër wala ci barab julli mbooloo am na nga neelul mbooloo waaye dem ci jàkka ëpp tuyaaba mu ëpp yiw ndax booy dem ci jàkk jéego yi ngi seq dem ak dikk lépp da lay sippiri bàkkaar da yokk ay daraja kon yiw wi nekk ci jàkk nekkul ci jullee ci kër wallahu taala alam mbokk mi laaj ku julli woon gone ndax dañoo wax ne julli gone naafila la ndax moom dana am gëneelu mbooloo ba bu gisee meneen mbooloo mu julli farata jooja du ko sañ baamu wala sañ naa am ak ñoom baamuwaat ko waaw ku julli ànd ak gone amagul gëneelul mbooloo kon su gisee meneen mbooloo mu julli sañ na ca ànd ngir am gëneelul mbooloo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na baat yoo xam ne dañoo wax ne ci sëriñ bi la jógee mu ci ak jaayante mu ci la ak waaw loolu de dégg naa koy wax waaye awma ci lu ma leer man wallahu mi laaj nee na daa dégg ñu ne ku ñëw ci nit la ko may ma sa doom ji bu la nee jëlal nee na say bi façon muy laaj dalil bi dalil mooy ab sëy al ijab wal qabul moo koy saxal ijab mooy kii maye ne maye naa qabul mooy kii nangu ne nangu naa kon kii ne may naa la mu ne nangu naa ak kii ne may mu ne may naa la ñaari yi ci am ab sey fasu na ñaari baat yooyu fii waxawuñ ko sëy fasoogut waaye saa buñ ko waxee sëy fasu na wallahu taala kuy bind aw saar aaya bu mu àgg dugal ci beneen aaya lu laaj àtteeg loolu loolu de li ma xamul lan la ci jublu ne alxuraan moom bu dee aw saar la aw saar la tudd di jaxase ay saar moom dañoo war a xam lan la ci jublu waaye aw saar moom saar la dugal ci lu ci bokkut du jaadu du jaadu ñu ne lii faatiha la masalan waaye buñ ko bind buñ bindee aaya bu njëkk dañuy bindaat benn aaya bu fokk feneen loolu buñ ko dee jàngee noonu loola day wane dañuy jàng alxuraan ci anam gu jaarul yoon allahuma dañoo jublu tegtaloo ci yoo xam ne aaya yooyee buñ sësulawut ci texte bi ci seeni maanaa mën nañoo firante su lu mel noonu mën nañ jàpp mën nañ ko jàpp lu ñu nangu wallahu taala alam mbokk mi laaj ne da doon jàng alquran am nit koo xam ne du julit ñëw nuyu ko mu war a def waaw bu ko leer loxo yi mu ko nuyoo taxut sobe de na continuer njàngam ndax sobe gi ñuy wax ne yéefar sobe lañ du lu sobe maanaa la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 kàddu gi jëm jëm kaw buy génn loolu bokk na ci nett yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko nett li ñu sëñ bi daan na santaane jigéen ñu jàng xasil ci anam googu te loolu lépp ci sikkar la kon jigéen du yëkkati kàddoom sëñ Abdou Xaaj Bàkke radiyallaahu ñu bu seen yëkk bu daganoon ñu yëkkati kàddu ñoom la ñu ñu dàq baat loolu bàyyi xel bokki baax a baax mbokk mi di laaj ko ko may ñaari junni ndax sañ na ko lekk mu déet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 bu mu doon loo xam ni koo xam ne it nag daal mel ne kuy encouragé waa ji mbaa di ko baaxalal lu nekk mais lu jékki-jékki romb jox ko ko moom sañ ko lekk ndax bu ko dikkal la alal du caa génne alal ji mooy araam waaye nit ci nit ki mooy baax ma am bon wallahu taala alam mbokk mi laaj lépp ci banque nga xam ne day am ay intérêt bu ci tegu dagan na wala daganul loolu dafa xaram jullit dafa xaram muy jëflante ci riba di lépp te booy fay teg ci dara dafa xaram moom xañ ne dagan mooy lor bu lor amee nga xam ne pexe amul maanaam daal lii tax nit sañ lekk medd li xiif bi tax nit ki sañ a lekk medd lu mel noonu ci àdduna bu amee bu am dana dana tax nit ki sañ a lekk ci banque da doon tey sës na ngir mu dund li mënta ñàkk ci dundam leb rek moo moo moo moo ci mooy tax mën ko am te leb googu banque buy def riba rek moo fi nekk mën ko mën jàll su boobaa ngant la ci moom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 lekk medd ci lañ daganale it lekk ci banque wala ñoom subaa nag ñi la lebal ñooy gàddu bàkkaar bi wallahu taala waaw mbokk mi laaj ndax ngooñ asaka war na ci xam nga ngooñ de tëpp menn meññet la mbay misaal bu dugub buñ bayee gerte ba asaka jot ci meññet ma la génne asaka suñu romb fenn fuñu ñu waxee ne xob yi asaka da ci war te loolu ay xob la kon meññet ma buñ ci génnee asaka la ci def nii di ko jariñoo xëy na buñ ko defee marchandise nag waaye borom tool bi bay bu toolam ñor moom mu génne affaire kay gerte ga euh, loolu day day duggaale ngooñ na ci biir ci lañ koy nag waaye su doonee masalan tey moom mu denc ko di ko jariñoo ba mu yàgg mu jaay ko bu ko jaayee xaalis boobu bu ko dencee ko jaayee saa yu ko jaayee xaalis ba ginnaaw ba la moon at xaalis bu asaka da cee wax ngooñ moom mu yàgg-yàgg ci loxoom su ko jaayoon xaalis bi xaalis bu bees la ngi door ñëw ndax asaka loon na mbay ma naka noonu koo xam ne nag day dem di jënd ngooñ di jaayaat moo dem commerçant bu baax ngooñ marchandise la mooy yeneen marchandise yi ne ci bitti ñooy am kooku day bu waxtu asakaal jotee day xayma li mu yor ci ngooñ def ko bu jaree ñaata lay toll ak li ngeen yi mu yor mu boole ko génn asaka maanaam ki bay ba bay mu ñor nii rek euh, buy génn asaka gerte ji moom euh, xamuñ fenn fu ñu waxee wala ñu wax ne ngooñ ma dañ mel daal li nga génn ci gerte gi day yóbbaale ngooñ gi wante nag lu bees xam na ba nu mu ko waxee nga xam léeg-léeg sax mm, mbay mi gànt ba noppi ngooñ mi am njariñ waaye loolu nag euh, rombuñ fu ñu saxawalee parce que war na ci gën a am gi ma wax ni mooy surtout jàppee marchandise allahu taala alam